simple. ayca bienvenue euh, bienvenue euh, dans votre émission miroir fin d'année maa ngi leen di bëggee bu baax a baax a baax fu waay mën a nekk rek te seetaan maa ngi lay kontaanee maa ngi nuyu ñëpp ah di di ah, di fay ñëpp di kontaan ci yéen bu baax a baax a baax di wax ni gis ngeen iPhone bi nga xam ne moom laa yor euh, ba tey mu ngi fii nga xam ni moom mooy ci plateau bi et ba tey mu ngi ci li nga xam ni mooy concept bu bees boobu nga xam ni ah, moom mooy teranga Sénégal ngeen nekk seen i kër wala ngeen nekk seen i bureau wala ngeen nekk fu leen neex mën ngeen di wote ci numéro yooyu laataa ma ciy ñëw xaaral ma nuyoo ba noppi mais dafa am benn information boo xam dama ko indi te lantinoor laa mënumaa denc diw avant kenn di nuyoo dama leen koy jox sama xel maa ngi teey sama xel mi nangootul groupe Futurs Médias ah groupe Futurs Médias sama xel mi daal yéen ñi yéen ñi yor yeneen structure yoo xam dafa jëm ci wàllu audiovisuel ah. il leen ay proposition man ma xool ma commencé xool damaa bëgg a dem naa def King FM directeur ba yéen ndax da ngeen koo miin bu baax ka kookal la kan mooy directeur bi Baye Cheikh waaw waaw waaw góoru góoru Mama Diallo nuyoo leen waaw <laughs> nuyoo leen dama koo gis ci ay tolof tolof yu métti station bii la pan essence fii ah loolu doy na waaw ma romb Baye may ko vingt mille muy jooy kom ma ne ko kii man man xàmmeetuma <laughs> maa kii yéen. <laughs> yaay rakkam muy jooy directeur King FM. sama directeur ma may ko 20 muy jooy. waaw yaay rakkam nag yaa ko war a. lan la mu ne ma naa la expliqué. lu xew ci kër gi dañoo ne ci ay torof torof naa la expliqué. <laughs> ah waaw ah. maa maa maa ngi ne bàyyi doon waaj a dem bàyyi da doon waaj a démissionné. démissionné góor ba bàyyi toogal bàyyi fiyee sa kër bàyyi bàyyi toogal. Eh, maa ngi lay nuyu baax maa ngi lay fay toogal mais def nga sa wàccu waay def nga rafet comme que décanté nga situation foofu na toog na toog dimbali nga ko di nuyu Sénégal yëpp di wax ni eh, chaque altine rek nii lay demee ñu feggoog ki nga xamante ni mooy Aba rakk mm-hmm. suñu rakk ji nga xamante ne rakk ju neex a rakkoo la feggoog jaw farama jaw xoor yore jaw booli boo ah ndax nee nañu ah man ko musuma leen dépassé bilaay du am ndax yow da ngaa baax gën gore baax sa xol rafet ah. ni nga defal Pape Cheikh rek nga ñuy defal di décanté sunu situation foo nu fekk wàccee nu ay billet mm. eh, di nuyu Sénégal yëpp di nuy kilifa diine yi moom laa waroon njëkkee mais kii ku nekk moom roube rek <laughs> ak kilifa aada yi ak kilifa aada yi moom su soxla ñu nuyu moom bañaa yokk yokk ndox mi loolu ñu nuyu kilifa aada yi loolu nuyu daal loolu yaa ko ñemee waa di nuyu suñu directeur sama directeur a ngi noonu noonu Ndiaga Ndour Waly Mbergane Ndour Waly Mbergane ayca doomi yaayu Youssou maa la wax lii doomi yaayu Bouba waxal doomi yaayu Ngone ñëwal doomi yaayu Abi eh. doomi yaayu Ibu eh. du joxe moom Ndiaga mi du joxe ko mës a bàkk bàkk bu toll nii lamb na poos jox la eh, kooku mooy Aba noonu lañ ko xamee mu nekk nit koo xamee tamit tamit ndeysaan la daal ku bàyyiwul sa directeur doo bàyyi keneen comme Pape Cheikh Muñal ndax lim la bàkk la bàkk léegi Ndiaga noonu ngeen ko gisee Sénégal non stress la tudd comme noonu rek la mën a doxalee di nuyu képp koo xamante ne waxtu yaa ngi toog sa saal di ñu seetaan rawatina kilifa aada yi ak kilifa diine yi. Mhm. ak ñi nga xamante ne dañoo nekk si lalu hôpital yi. Ah, di leen wax ni yàlla na yàlla wéral yaram bi ba nu dellu seen ak ñi nga xam ne dañoo nekk ci prison yi tamit mhm. rawatina. Mhm. ñu ngi leen di fekk foofu di leen ah, bokk ak ñoom tiis wi leen gunge. te di leen wéttali di wax ni yàlla na yàlla teggi loolu. natt boobu ba ñu delluwaat ci seen i activité di nuyu Sénégal yi di wax ne nag. altine mooy li nga xamante ni mooy ibbi mhm. semaine bi te nare neex ambiance bi day continuer comme tey altine bi dina mel ni supp ne tatu mm, ma ma delloowaat la nuyoo bi rek nga daal di seeti jaw farama jaw xool <laughs> lii la ñu wax oxooxo suppu ne dina bëri oxooxo mhm, moom day bu moral moom <laughs> alors Abba maa ngi lay nuyu di nuyu mbokk téléspectateurs yi di nuyu également ki nga xamante ne moom moo di dërëm mhm. comme niñ ko waxee rek c'est un réel plaisir de vous retrouver sur votre émission euh, bi ñu duppee euh, miroir du Sénégal nii lay mhm. demee saa su ne chaque lundi ñoom ñaar ñëpp wax nañ ko donc émission ambiance lay doon tout en espérant que vous très chers téléspectateurs vous serez tout cuit euh, de nous avoir devant ou bien chez vous wala képp koo xamante ne doy la comme ni ko Abba di waxee saa su ne mun ngeen ñëw monument de mhm. renaissance une heure boo xamante ce sera de l'ambiance de la détente rien que pour vous donner du plaisir parce que votre plaisir euh, c'est notre plaisir te comme ni ñu c'est le miroir du Sénégal tout en espérant que teranga yi ñu leen fi nar a jox aussi di ngeen ci gis seen bopp ndax yéen ñëpp yéen a moom lu oh, my happy donc euh, noonu ko noonu waaw faaw ngeen a euh, de chance de gagner donc euh, yéen loo gën di woote rek ci numéro yooyu nga xam ni ñu ngi leen koy wax 88 628 22 22 wala 88 628 72 86 88 628 65 65 wala 88 628 04 05 wala 88 628 99 80 ba tey 88 628 76 76 wala 88 628 99 90 ngeen nekk ci loolu nga xam mooy miroir fin d'année mm. ànd ak concept boobu nga xam ni mooy teranga Sénégal sama yaram dafa tàng tey bugguma ay téléphone bii amul ay bu dimanche lañ koy maye. Mhm. amul ay ci ay tirage lañ koy maye ah, yooyu amu fi. jaxat léegi laa ko bëgg a maye tey. Ah, léegi léegi dixième appel bi damay waññi ba mu mat dix. waaye góor day gaaw baam ki dugg dixième ah, appel. yow Youssou wayu la ma may la appel bi. Eh. man man sama yoon nekku ci nay moom ma nay. buuba nduura moom nay. <laughs> njaga nduura moom nay. ñiye moom nay. Eh, buuba ak njaga ñoo moom nay. yow daal góor day gaaw baam ak père man maa ci daraame. ma papa Mari Dramé. Ah. sama papa nga mais ku nay nga. aywa moom nay li kabay ak Sidi jaxate. <laughs> Eh. jaxate kabay Sidi jaxate. li mbaa jàmm la. sama papa la musul nay. waaw waaw ngi sama nopp bi naan Mara defa nay. Mara musoo nay sama papa jooju nga xam ni kenn du yow. maa la wax eh. appel bi. Ah. dama koy may lii. sama yaram tàng na tey nit ñi naan leen par dimanche ngeen xal tirage ah, dimanche ba dimanche day yàgg lundi la sama <laughs> ñu ma boo mayee lii <laughs> <laughs> naa génnaale dem ay te bu dixième appel bi duggee dama koy may lii avant ñuy jël avant ñuy jël benn appel nañu dem xooli euh, premier clip bi te ñëwaat ci plateau miroir fin d'année tay ay ndaanaan yu mag a mag a mag anniversaire nañ tey jàmm ak njëriñ boobu am na suñu jàmm am suñu njëriñ mm-hmm. jeeg jàmm ak njëriñ mm-hmm. ah madame Guèye borom euh, club de beauté Ah, su ah, dañuy def anniversaire mois bi yëpp laa koy defal ndax jeeg bu baax la te jeeg bu baax ah, buñ koy anniversaire ñëpp war nañoo sàjji mm. bàkkal ma ji nee ko mois bi yëpp moo ko moom fu ma nekk rek dinaa ko souhaiter un bon anniversaire fu ma nekk dinaa ko souhaiter joyeux anniversaire waaw waaw waaw ngoone na ma sànq sax sànq a daal nee ba yéene <laughs> waaw waaw waaw. dina la ko jox ma jox ko ko. waaw waaw waaw jeex na envoyé nga ma yàlla jàmmam baax na. ayca jaw ci doonu ba tey rek euh, man it ma souhaité happy birthday ki nga xamante ne moom moo di bébé euh, Khadija di turandoo maman Khadija bi ànd euh, sunu yaay ji nga xamante ne moom moo di ajaratu sama bàjjen bi rek ay Aïda Ndiong Ndiak mi donc vraiment bébé Khadija on te souhaite un happy birthday ak ki nga xamante ne nag moom laa bokkal di sama doom ndey donc Mbodj Fara Daba Mbodj on te souhaite tout le bonheur du monde et puis di la naan dundal rek yow xam li nga bëgg sa biir xol sunu borom may la ko waaye Ndeye Binte Diagne moom itam borom kër yaay Xadi tey la bés de yam ñu ngi ko koy souhaité à baax ayca bu suba ak ñu ñun ñëpp euh, ca Grand Théâtre ak El Hadj Keita euh, doomi Médina boobu nga xam ni affaire yi mu ngi avancé bu baax a baax a baax a baax ànd ci ak Prince Art ànd ci ak la télévision Futur Média donc bu dee am na ku nekk ligne bi avant ma koy jël wax ni tamit mercredi le 25 ñu dem foofu nga xam ni moom mooy ca stadium Iba Mar Diop ak le Petit Bal ak xale yooyu nga xam ne ñooy xale All Star seen Petit Gallé ma jël ñi ki nga xam ne moo ne ci ligne bi ñu waxtaanak ak moom tey nag invité yi macha allah dañoo ala dawme ñu ngi ñëw nànk par nànk dafa mel ni dañ leen di commencé jël léegi xaaral ma xool ki ne ci ligne bi salaamaaleykum. maaleykum <laughs> salaam. na ngeen def yaay booy. ñu fi. yéen a ngi am jàmm ah yaay maa ngi ki jug de ñii de dañ may aaya jug. <laughs> ah tey bul jug waaye boo jugee du baax. yaa yaa ngi am maa ngi sant bu wér waaye ndegam jot naa leen ndax woote naa ba sonn balaa ma leen di jot. ay ku ubbi yëfi jàmbur yi. yaay. waaw. noo tudd ak fooy wootee. man Kumba Sarr laa tudd. fooy wootee. maa ngi wootee Mermoz. fan ci Mermoz. Mermoz eh, Sotrac Mermoz. ah mooy wetu kër président. <laughs> waaw soriwul de. président Macky foofu la dëkk. waaw soriwul. soriwul torop daal. yaay nga nuyul ma ko. dina ko dégg su ma ko gisee. bàyyi Amadou ak Ibrahima ba bàyyi ah loolu am na. yaay nuyul ñu tuddee yaay kan. ah Adja Marème rek. moom la ñu dénk alaaji président. waaw waaw waxal ko yaayu Amadou gi noonu du ñoom son excellence yi. yal na seen jàmm yàgg yaay booy. aywa eh, amiin waay. léegi waaw léegi yow. waaw la fan. est-ce que doo mobile Dakar. yaay am nga Sédhiou. yaay ah. Fatick. Saint-Louis. waaw Kédougou. waaw Thiès. waaw Tamba. waaw Louga. <laughs> Eh. Matam. Eh. Kaolack. Eh. Kolda. Diourbel. Uhuh. Kaffrine. Uhuh. ak Dakar. Uhuh. moo Dakar. waaw léegi ubbil ma Dakar. Ndakar Ndiaye Ndakar Maodo Ndakar Ndiaye Ndakar Ndakar Ndakar Ndakar Ndakar ye bongo maani Ndakar. ndaka yaay booy. waaw. maa nga jëm ca jaw oh. romb dërëm daal di dem ca jaw waaw. ay ca jaw teel yëf waxalal sama yaay lan la ko teraanga Sénégal ak groupe Futurs Médias jox. allo yaay. waaw Mado. yaa ngi seetaan télé noo def. maa ngi nii jàkkaarloo yéen di leen naka sa après midi ba yaa ngi enjoy bu baax di kontaan. waaw bu baax a baax sant yàlla bu wér. ni may def rek damay woyee ndigal tijji enveloppe bi nga xamante ne moom nga tànn fii ci Ndakaaru. <laughs> waaw. te dégg naa ne xaalis dañ koy wàññi. waaw loolu am na. kon boog ñu waññi rek xool ñaata nga am benn ñaar ñett ñeenti juróom maman. waaw. teranga Sénégal jox na la fukki junni. <laughs> waaw waaw dégg lii. ah kontaan naa. macha allah yaay borom. yaay kontaan naa macha allah macha allah. da wàcc ci suuf rek wàccal ci suuf nank rek. Mhm. Ah. nank rek yaay nank rek ci suuf waaw ñu daal la koy wax mhm. nooy def ba mën koo jël yow bu dee mën ngaa liir doo ma dimbali nga liiral ma lii waaw per bu xar la ah <laughs> <laughs> eh. bu per bu xar loolu nag diggaale wuñ ko woon ah, ah, waay waay ndax aba am na fukki arbre de Noël yaay jàmm teewul mu bàyyi yëpp toog per yaay bon lii du sa cër man daal nee naa damaam am arbre de Noël ñu ma absence moom égal virage. ah per ay per ay per. sama gars yi ngi noonu yow gisee leen. ay waay woon sama njaboot yi. léegi bu la neexee euh, naka waay déedéet déedéet sax. xale tënkee comme que wàcc na ci suuf. ah euh, kii kii wàcc na ci suuf per ñëwul koo ko bëgg a remplacer ak micro bi. ah. koo ko bëgg a remplacer. moom de laa bëgg a. moom de bëgg nekk léegi xaaral comme ma xool ma nuyu sama yaay ambiance. Ah? madame Mbacke yaay sëñ Fallou. ma nuyu madame Mbacke yaay sëñ Fall foofu ca Nord Foire di ko béggee bu baax a baax doomu nday ndàkk Guèye Ndioro sa sëtu Penda Wurs boobu nga xamante ni ma nga Paris la France ak Awo Badji ñooñu dañoo nekk Paris ah. bëgguñu lool di suivre seetu bi di nuyu lu madame Mbacke bu baax a baax foofu ci Nord Foire yaay sëñ Fallou Galas bàyyi mbeen ñu ngi lay ziar bu baax a baax léegi man il faut ma puus bàyyi ma puus man ba nee wala dafa am ci loolu nekkoon waaw dama bëgg juste souhaiter happy birthday ki nga xamante ne moom moo di jabaru Khalifa Mbergane mm, te ku xam xalifa mm. dafa yàgg jàpp ci li nga xamante ne moom moo di sunu ay combat donc vraiment de par ma voix Khalifa donc on souhaite un joyeux anniversaire à ta di ko souhaiter tout le bonheur du monde yàlla jubale leen mu bàyyi la aussi li nga xamante ne moom moo di sa sago ndax yow it soxla nga bu baax sa sago ndax yu baax yi ñuy ñëwal saa su ne kon happy birthday à toi am na solo euh, mu ngi noonu donc man dama war a wàcc ci suuf xool sama gaaña fee ma est-ce que du ma la bàyyi nga jël sa ayca waaw jeex yow daal déroulé rek loo def rek. muy lu ma def rek mu non non non il faut ngeen wax ma nag naka la ñuy def ñu organiser ko. yow daal xam nga kër sama waa jaa nee toog kenn du Fodel Mbaye ma nga nee toog. waaw léegi ci Fadel buñ paree ñu jublu ci. te yàlla dogal na ne yaay sunu sang fi ne ah. nii yow yaa ñu. rek di bumi. Ah. kii moom te ab gan koy tere te ñeenti ñu teel a ñëw xool naa ko ba maye fi ñu toll moom fi yaa <laughs> yaa ma dese waaw waaw man di nga émission ba tey <laughs> <laughs> maa seen kilifa maa seen kilifa. Ah, waaw yaay kilifa naa kii. ci mm-hmm. eh, ay loxo ma maye ko. Mm-hmm. caatu ami. waaw. maa ngi nii waa ji anam moom. mu ngi fi ma ngay def li ko war yëpp. ko war waaw. waaw yow kii moom mu ngi fi ba bëgg bëgg yi yàgg moom ci nañ naani koko. day na waar naani koko gi. <laughs> na na <laughs> day na waar daal. naani koko gi bëgg yàgg xaaral ma dem ca Fadel Mbaye. te ñëwaat léegi ñu daal di yeggali. ay ca mën ngeen a doxal maa ngi ñëwaat léegi ci yeen sama waa maa ngi leen di ziar bu baax mbaa yéen a ngi am jàmm lu ngeen def ak coono yi mbaay seexu gay sama waa ji nga xam ni mooy Saneex daf ma woo dimb ci guddi wax ma ci ay wax foor fort programme beeg événement yeeg son yu bees yeeg yëpp ma bëgg laa bàyyi yow ak euh, les téléspectateurs de la télévision Futur Média ngeen waxtaan. waaw Aba maa ngi lay nuyu. di nuyu Sénégal monde entier. Mhm. di nuyu sama fan si diaspora bi. Mhm. di nuyu mon frère de valeur. Mhm. alaaji Seexu Dey alias Saneex. chéri Sadia ku baax ku ma bëgg. dëgg yàlla mu boole ma ak yow ngay nit ku baax aussi. ñu yàgg bëgg lii tey la ko yàlla dogal mais tey fii dama bëgg mu wàcc. da nga bëgg fi tey taasu nga eh, taasu nga woo taasu. waaw léegi ay ndox taxu ko jóg. bag ba la jëli. <laughs> taxu ko jóg Bamba la jëli naa Dakar na door paa waaye woo pop pop yàq naa Dakar ay waaye yéen xam ngeen lii Dakar na door paa la <laughs> eh, léegi yow Fadel waxal programme bi rek bu leen fi tëggat bu leen fi defaat dara ñu dent lii lii man aw ma benn émission bu ma yàq lii xam ngeen ni lii eh, eh kii na ngeen def. <laughs> tubarkalla <laughs> dërëm. ah fii ngi wàcce waaye yow da ngaa ñeme dugg sa yoon nekkul. Fadel dama cee dugg ba mu neex. ah man dama ciy dugg ba mu neex. ah ndax Fadel daa laa laalaake. ah. Fadel bu leen laal laalaake te bu leen laal laalaake bu tànn sax sax xam nga la ca bokk nga boole ko ca doo tànn sax Fadel doo tànn sax sax nga la ca bokk nga boole ko ca doo tànn sax sax yokkal ma fi ay kenn ko yokk ay waay bokk naa ci fort MIAE MIAE yéen ñi nekk ne ci miroir fen dana ngeen koy ñu ngi ci monument de la renaissance xam ngeen concept boobu nga xam ni le groupe Futur Média ci ay auditeurs am le groupe Futur Média ci internautes yi le groupe Futur Média ci li nga xam ne mooy téléspectateurs yi waaye da leen dem di suivre ñu ay page ñu ngi ci Instagram bi ak GFM ñu ngi ci Instagram bi ak King FM waaye ñu ngi ci Facebook bi partout ngeen dem xool suñu ay donc loolu daf ci am solo lool lool lool wax naa ni miroir fin d'année c'est tous les jours le lundi ambiance comme ni ko gisee show xumbal ba mu xumb les mardi humour la indi ñëpp reetaan les mercredi nag ma ànd ci ak les PNJ def affaire de jeunes def affaire bu fun donc loolu nañ ko defee dispatching li nga xam ne mooy programme yi les jeudis ñu bàyyi ak kook ni euh, ba lool lool lool concept boobu nga xam ni mooy le groupe Futur Média dafa mel génn dafa mel ni album day waaj a génn dafa mel ni ay événement dafa am. waaw euh, Aba. Mhm. single bi génn na. déjà euh, lancé nañ ko macha allah télé koy teg. Mhm. te yaakaar naa ni yow tamit di nga ci jàpp. waaw ndax euh, artistes yi macha allah koo ci teg loxo rek suñu borom dimbali ko. ndeysaan parce que yàlla moo may bàkk. mi ngi noonu ñi ngi nga jàpp ci bu baax. yàlla baax na waaw mi ngi noonu single bi nag génne nañ ko. Euh, sénégalais yi franchement ñu ngi koy apprécier mhm. dëgg yàlla ñu ngi pare album bi mi ngi ci yoon bi liggéey nañ loo xam si nee naa la taasu Sénégal taasu mhm. dafa war a def nii dafa war a jub ni taas dafa xew mhm. taa xew foo dem taasukat yi koo gis mi ngi yor bongoom ñi yor seen i bool classe leen ma ñu ngi noonu ma taasukat yi classe maa yëkkati yëf yi waaw hip bi classe nañ ma gis ngeen humour bi classe ma gis ngeen ni mu mbalax mi classe ma taasukat yi nañ ma classe classe leen ma. en tout cas taasu dafa am solo. waaw xam nga taasu. te yaa ngi ciy def lu am solo. Mm-hmm. taasu da daan defar. Mm-hmm. te jamono ji toll taasu daa war gën di defar. waaw moo sama taasu soog damay defaraat toogi ñaaxaat jigéen ñi di defaraat kër yi te loolu solo ci taasu. maa ngi ñëw ci yow léegi léegi nii maa ngi ñëwaat ci yow xaaral ma dem ci sama fee ci sama gars yi. te ñëwaat ci yow ñu yeggali yéen bu leen pousse bu leen passe Anne Marie ana kii ataaya indil ma ataaya yow kii xam naa tey nit ñaa ngi naan abal la moo tax mu sol ay daalu carax du caraxi laay ni wande du caraxi laay wane mais dama am ay xoos-xoos fii mënumaa sol ay daalu fermé moo tax mu sol carax yi xam naa nit ñi tam ñu ne aba daf ñuy wan ay daalu caraxam waru ma leen carax yi sama xoos-xoos yi laa leen di wan noonu <laughs> ay te bu am na ku nekk ci ligne bi mën nañ ma ko jox bu kenn nekku ci ligne bi ana madoo ana dërëm ñoo ngi nii toog ah ngi nii toog mën ngeen maa may ma wuy ki na ci ligne bi avant may ñëw ci yéen maaleykum salaam. allo waaw. waaw na nga def Aba. na ngeen def yaay booy. ñu ngi sant bu baax a baax. yaa ngi am jam bu baax a baax. yaay yaa ngi gis xale yi toog ci plateau bi. bu baax yaay ñi toog ci plateau bi nii est-ce que yaa leen di gis. bu baax sax. yaay xale yi ñoo doy waar. weesu yaay xale bee toog so booy papa mi moo way salibate yaa xaar moo ñëw <laughs> maa ngi ñëw léegi yaay. yaa ngi xool li nga xam moo xew ci réew mi. maa ngi koy xool kañ Teraanga Sénégal. waa quatorze région la de. waaw. moo bind la ci ban. yow yenn saa day càng. bind ma région de Saint-Louis. yaay foofu daa sori waay yaay nan xool fu gën a jege. waaye yóbbu ma yóbbu ma Saint-Louis doomu ndar moo tax. ah ci yaay. waaw waaw. yaay ci seen takkusaan. waaw waaw. yaay ba siñaar ak lingeer maa la wax lii. yaay sañse génn génn ndar. paraanga yaay di jëm sud. wallaay sundoone. la xëy la la yaay maam miin Ndar mm. ba ay ay yaay ay yaay. ay yaay. yaay. waaw. yaay. yóbbu ma Saint-Louis waaw. kaaxo yaay kaaxo. yaay. waa Idil. kaaxool. waaw. yaa yaay. yaay. yaay woo say dëkkandoo. na ñëpp génn. na réew mépp génn. na ñëpp génn. Abba sàjjeet na biir ndax fi wàcc na. yaay yaa ngi may seen. yaay yaay fukki junne ngi nii. li la teraanga Sénégal defati. déggal loolu. yaay yaa ngi may gis. fukki junni bàjjo mi lañ la fukki junni lañ la terale may ci waa Ndar gépp. yaay wàccal. léegi da ngay wàcc ci suuf ñu jël bi. yaay wàccal. wàccal ci suuf. cam laa la laa ku mënul ba wolu yàqu yow barke yoon bi lii la ñu def aba mais fi ñu toll nii ah. dafa mel ni plateau bi tey dafa àla doom mi maa ngi ko doon wax sànq ah. plateau bi dafa riche euh, ay xale fi ñëw waaye ay xale yu ndaanaan pire am Mado waaw ma bàyyi la nga doxal waaw comme ni nga ko waxee rek euh, ki nga xamante ne moom moo di Abba ab euh, ay ndaanaan daal ñu dajal ay xale yoo xamante ne dañu xew ci jamono te xale balaa ngay xam ne dafa xew rek nga dugg ci li nga xamante ne moom moo di réseaux sociaux ñëpp xam nañ ni que TikTok dafa xew ci jamono mhm, mhm. te ces jeunes là ils ont ravagé li nga xamante ne moom moo di TikTok man TikTok naa leen jéeg boo gis tubaab yow sax gis nañ la machallah juste pour te mhm. dire que ay xale yoo xamante ne machallah dañu loo xamante ne moom moo que tout le temps dañuy wax bongomaan yi dëkkal ñu ne déedéet ay jeunes nañu gëm seen bopp waaye xam nañu bu fekkee ne da ngay way ñu lay dégg da ngay boole li nga xamante moom moo di solu bu rafet taaru ba pare way ci wax joo xamante bu fekkee wax nga ko ki am dégg-dégg bu ko déggee xolam dina euh, dugg ci maanaam li ngay way dina dugg ci biir xolam xale yi nag ñoom ñooy xale tëngeej waaye li may def rek damay bàyyi ki nga xamante ne moom moo di dërëm mu dalal nag ñi toog fii ndax ñoom papa tubaab fakal la ñi da nga leen di jël rek yóbbu yaakaar li neexul. ayca ba bàyyi leen kon ñu def parce que. dañu nekk ci mois de décembre. Mm-hmm, mm-hmm. di préparer nag Dakar na door plus yu amul fenn. Ah comme bu ñu defee fii lancement bi eggale bi ca Dakar na door plus ba lay doon. Ah, ñu invité nag xale yi xew lool. way ah. yoo xamante ni tubaarkàlla macha allah balaa nga leen di jox. luñ fi way. ma may ko ci anniversaire bi. très bien madame a ayca nuyoo leen. ma yëngatu. classe boo ngomandi ci réew mi yem leen yemati leen yéen a njëkkee classe bi nag yéen a njëkkee classe bi yéen ko njëkkee. te dafa am moom Aba dama bëgg laaj yow est-ce que classe bi féetewul ci yow. waaw parce que wax dëgg fa yàlla képp koo xamante ne day classe rek soos lañ la ci biir est-ce que du yow yaa engagé wala engrané affaire classe bi. waaw déedéet dafa am loo xam ni dafa am leen loo xam ni dama ko ci doon jéem a def xam nga nee nañ ay du yem ci bopp borom maa doon jéem a dem ci ay dib ak yooyu di leen wax ni kee mu ngi lay wax lii di dem ci ngaaka naan ko kii wax na la lii maa doon dem seen biir kër yi waaw di sooke nekk da ñoom ñëpp ñu xam ni may nettalikat bi ñu sip waat ma yëpp moo tax doyoo bateer bu la rombe guddi bul ko nuyu Eh, eh, nañ dem xooli clip te ñëwaat lii dafa fort ah, lii dafa fort eh, eh clip clip nañ dem salaat di clip te ñëwaat léegi ci plateau bi ma jël benn appel ñu soog a ñëw ci célibataire bi lii ma def buzz ci internet bi jeeg yi dafa ñaaw moom yilifu la mën a ci 22 0 25 directeur foo jëm jaga bul dem bul dem ñoom dañ lay jox émission nga koy def wóoru leen ndax am nga essence wóoru leen ndax am nga paas lijjantiwuñ loolu ñëw na demaat na ñoom lijjantiwuñ la ñoom mais ñii ñii nan yeggale nan yeggale donc li ñuy def rek abaa xanaa nga permettre ma ma souhaiter joyeux anniversaire à nga xamante ne moom moo di Arona Dia bu président de la République ñëpp xam nañ ko eh, Arona Moussa waaw ne damay bàyyi ba après nga dàbbali rek donc mbokk ndeyu Daouda Dia moom itam mi koy souhaiter vraiment happy birthday ak ki nga xamante tamit moom moo di seen militante bu mag bi di Adja Néné Dem moom donc de par ma voix et la voix de Abba sama voix kay mën nga ko cee génne baax kii mën nga ko cee génne. happy birthday enjoy your day. souhaité leen tey nee naa leen tey ñu fooree anniversaire tey. <laughs> madame pare fa dem ci Arouna Moussa Dia. ñoom moom am na koo xam dañ koo jaay ci émission bi te kooku anniversaire wu yéen koo kan di sant mhm. sunuy yaay di nuyu sunuy baay. Mhm. di nuyu fans yi nag. Mhm. ñi nga xamante ne ñu ngi béggee ñoom Papa Bongo ñëpp ñu ngi leen di nuyu. émission bi nag tey. ay sa jàllo lan ko may madame Tania ajaratu nday si borom pare mooy yaayam mooy borom ñooy yaayam ak nday xadi buti limite ay sa jàllo émission bi yaa ko moom sama jigéen sama xarit ay sa sama xarit la waaw madame Tania ñu lool barki démboo Njaay anniversaire ba junni yi bari nga nu jox yal na yàlla guddal sa fan aba tey damaa bëgg mu benn tige dege zabra man moom moom mosuma jox moom mais ku baax la wuna Serigne Touba ay sa li nuy way yaa ko moom ay sa jàllo yaay jonga ay sa jàllo waay jonga bi mu jël ci naani kooku daa bari kii bu dee bu dee ñëwul wayal sunu way wi doo ko way morom kii kan la bëy. eh kii eh kii eh. kii sunu xarit la mooy xaru laadum. eh kii la bëy. Eh, kii kan la bëy kii garanti. da nga war a woo kii wax ko dëgg. wax dëgg naa ne koko beeg ay dafa bari dem corniche naa ne koko ma ngay doy. waaw waaw ah, kii mais mais mais euh, mais fi ñu euh, mën ngeen ñoo wax. fan ngeen commencé ci bongo parce que fi ñu nii bës bi doy na waar. ayca papa. rampe bi mën naa ne yàgg na. parce mm-hmm. que Serigne Touba ñu jàpp baay bàyyi te Mado mi man aw ma fayam. ku baax la. ñi la mel de bëgg dërëm seede na loolu. ñi la mel de moom de moom moom moom du bëgg fekk nit ci suuf mbaa ci ab moom du la fekk ci ruqu. xam nga abaa mm. soxor ak iñaan ak bon naa naaf fiq danoo bokkub lal waaye bokkuñu mbañ bañu sàngoo déggal sàngu yàlla na yàlla guddal fanam déggal sàngu te ki ngay kar mu di la daw doo dëj ak moom sama jabar bi muy xew lu ne def na ko ci ndeysaan bëggal ma boppam te lii bu amee tey yàlla ak moom la. la dëgg la ñoom ko may de. dëgg la ma dugg tip top. nga dégg nga sinap ko nga sinap célibataire yi lu rafet. nga ñaan ñu ko. yal na yàlla guddal fan yi ku baax nga. may wax ni boo bongo maani Sénégal yëpp ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay. ah bu loolu amoon am nii tey nii xool ma ma ne <laughs> ah. bokk ndey ak nga toog Aba lii am ni émission bu nu mus a def ci àdduna dërëm mën na ma seede Mado mën na ma seede. nii la ñuy def. ndeysaan lu ñu mus a def la ci àdduna. sañ seen yi ñëw toog. def ba mu baax parce que tamit ñun. ay noobul lañ. ay noobul lañ bilaay artiste yàqunu suñu bopp. bilaay artiste bongo yi. bilaay. mu ngi nii toog. bilaay artiste mm. mm-hmm. jaam yi duñu ñaanal. sunu yaay duñu ñaanal mairie sax dañu ñaanal. Mm-hmm. muy groupe boo xam ne géwal dafa neex kaay mu neex nga woowi géwal ñoo yor xool si ñoo yor feeling mbaar dañu koy mbëpp mbëfër dañu koy eh, soo ko ñëw di ko riime <laughs> eh, eh. bongooy moom la ñuy ah. wax ji cere lañu koy siimee bongokat yëpp nii lañ leen tiimee. Eh, léegi eh, léegi eh, yéen lii xam nga lii ay wax la yoo xam ni tarkalla ma dama koy bëggaat donc fi ñu toll nii wax leen euh, fan la yëf yi toll ku soxla euh, groupe bi ak groupe bi nu mu tudd fu mu leen di fekk ngeen joxe numéro yi euh, dama leen di yeewi damay fee demaat ba pare dama fay am ñaari booy yoo xam ni vraiment du ñu ñëw ba dem te du ma leen jox micro bi ñoom it ñu daal ci participer donc. ndeysaan léegi numéro bi 78. 317. Mhm. 47 55 ku nu soxla woonu. 317. 78 317 47 55. bala nga def 77 124 86 36. mafia baa ngi xale yi lëmbe réew mi lëmbe TikTok bi. Mhm. bëgg a bongo taxut a mën a bongo. Mhm. barke xaadimul xadim. mën a bongoy tax a bongo. mën a bongoy tax a mën a bongo. Mhm. ba noppi respecté ko nañ respecté bongo yi respecté aar bi. aar du fo. di jàng di toog di créer. yàlla na yàlla bongo maa ngi ci Sénégal yëpp yéen a fi dàq bongo yéen a da ah, man bu keneen ñëwee toog ma wax ko leen waaw ah, garaaw yéen a fi mën li ma leer ku mu leer nga jàpp yonent bi ay waay sax neex na masa la juddoo ay ma doo maa ngi ñëw maa ngi fa jàkk jox fa néeg teeral ko fa ma doo ay alma alma foofu benn micro alma benn micro dafa mel ni ñoom Pape fi ñu toll nii nañ tàggoo mën ngaa tàggatoo ak ñoom Pape jël suma ñaari gars yi. ak euh, fête bi euh, la. ñu ngi waajal kaset. single bi ñu ngi koy waajal Aïssata Tandia madame Aïssata Diallo madame Tandia ndeysaan madame Tandia ajaratu ndey si borom pare yaayam kenn du yow yàlla na yàlla guddal fan wi ak ndey xadi bi yaay borom moo ko moom moo ko moom ak Seydina Mouhamed bar ñi dëgg neexul mag yi géy ni kooku moom dëgg neexul waxal ma ko kii faaw ñu faaw ñu moom waaw magi géy club de beauté mu ngi noonu sama gars yi fa ñu nekkoon dafa mel ni daa baax dafa mel ni ñu ngi doon sant di gërëm dafa mel ni ñu ngi doon sant di gërëm gars yi nañ ko sant rek ci ci ci ci temps bu ndaw rek ma ñëwaat fii jël gars yi parce que dama war a dem fee tëj émission bi nga xam ni mooy miroir fin d'année et puis ayca ayca ayca ayca ayca ayca fu ñu nekkoon fu ñu nekkoon fu ñu nekkoon fi ngeen nekkoon baax na foofu baax na macha allah dañ doon gërëm rek ki nga xamante ne moom moo di madame Guèye mbokku mm. ndeyu euh, euh, dërëm donc ah, moom lañ doon borom club de beauté moom lañ doon souhaité happy birthday di euh, ko wax rek joyeux anniversaire to you happy birthday to you waaw ngalama gàtti doowe ngalama gàttu yoo weeli ngalama gàttu yoo weeli ama gigéyi ngalama gàttu yoo weeli waaw kon nag Aba ñu souhaité waale ci rek happy birthday à Arona Dia micro bi nag nga dalal ñooñu nga ah, xamante ne ñoom it dañu jóge fu ñëw dàq si seen wërsëg fii euh, émission miroir du Sénégal Aba ayca mu ngi noonu jaajëf Mado jaajëf dërëm jaajëf sama gars yi nga xam ni ñoo nekk ci plateau bi ma tamit maa ngi souhaité un bon anniversaire à monsieur Arona Moussa Dia ah, di ci jaarale kook nga xam ni moom mooy sama yaay maître Dior Diagne ah euh, di euh, li nga xam mooy avocat à la cour yaay booy maa ngi lay jaar yow pere sa yaay foo xàllu yoon la sama gars yi maa ngi leen jaar siyaar nañ la Aba. ku may jox micro bi ci yéen ñaar waaw léegi euh, fi ñu toll nii yéen da ngeen euh, yéen da ngeen fee jaaroon ma ni nag euh, loo xam ne mën ta ñàkk faaw mu am ñu jox leen ngeen participer ci yëf yi parce que lépp ñëpp la ay ca حيا سلام على مادا خارون مساجا ايه واي سامبا من مثل مني مغارب وسيابي اني دي تشرنو علي تشاموي خيو بابو يم مثل مني ما بندم بابا كو بريجي فدان كو بمدا كلنغلا سلام على مادا خارون مساجا اكا نياكا مانو min mi salminima mm. baboyam mm. an wallima kisaloy maka kumba cillo hayomaki ceɗɗo samare molo borogo takko birde mo sadaka ñalade adana bi lu tax lépp da changé adana bi lépp lépp wutena du ci waxin du ci solin du ci nekkin xaruna musa ah, kenn kenn du la kenn du la kenn fi ngeen nekkoon nga nekkoon fi nga nekkoon ci Aaron Moussa Dia nañu ñëwaat foofu parce que dafa mel ni Aaron naa ngi seetaan misal mi nima hare noy salamala mala gari posiyaɓe hakkunde wuro sogue matom hakkunde sinco ɓamɓe banaji naɓe horko jeere mbiye funare ndendore kaƴel hayo podornaɓe ballen haruna moussa dia mis mi salminima baboyom bandum baba ko pereye haala koy jox micro bi <laughs> ah. man maay Ousseynou Diop. Ousseynou yow da ngay bongo. waaw damay bongo. fan nga féete. maa ngi dëkk Géejawaay cité euh, Gàddaay. Gàddaay. waaw maa ngi dëkk ba Gàddaay. tey jii la fa nekk ci ay xew lafa nekk ci ay ngoon na ak ay yendu. dafa mel ni Ousseynou koy toj foofu. waaw loolu dëgg la. ñi bëgg nga fekk seen fi ñu nekk boo leen dee jox sa numéro ban numéro nga leen di jox. waaw sama numéro jafewul da ngay def 78. 108. 13 26. Hmm. waaw 78 108 13 26. oo de tukulóor. waaw waaw man tukulóor laa mais aussi damay dem si xebi di taasu lu neex. di way mais nag euh, way mooy sama kii quoi. ndeysaan waaw dëgg am na solo. am na solo donc ñoom dañoo ñëw ba fii man leen du ngeen i miroir fin fi euh, ah? maa ngi gërëm sama papa mu ngi ba Paris mu ngi tudd Mamadou Diop santal aussi maa ngi gërëm sama yaay Rougui Ndiaye lépp moom la maa ngi gërëm waa Cité Gàddaay ñëpp euh, waa Cité Gàddaay ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm sant leen barke Serigne Babacar Sy dañ ñoo jàppale suñu waaye koñ mais aussi ak Mado xam nga dërëm ñoom ñëpp bégee nañu ñu baax lañ yéen télé télé changé wu leen quoi ah, waaw déedéet kontaan nañu yàlla jaamu yàgg ay amal jàmm kontaan nañu merci beaucoup ay bonne continuation yokk ak ndam ma yeggali fee ci sama gaañi fële ah euh, daal di yeggale ñoom ana Mbaye euh, sa waay Mbaye yow fu ñu tolloon yow yow maag yow ah Fadel borom bool bii moom xam naa ni man xam naa ni man boo moytuwul mooy nekk sama fan parce que dañ ñu ma bu ma génnee lu toll lu ëpp plateau bi waaw kay waaw kay waaw kay léegi eh, bool moom man moom ay tama ki sabar mën na maa laal ku ma daanu bu ma fa boo ngoo fekkee mën na maa yóbbu ma xam ab tama moom mën na maa tax ñu hospitalisé ma mais bool damay rey et li ma gën neex ci moom dama ko bëgg ci artiste mhm. mooy moom dafa spontané moom da nga naan tag rek rek waaw waaw waaw moom boo nee tag rek am na ci fu mu jëm lii dañ la koy indil Dakar ne dort pas indil la taas da ngeen koy indi ëpp na te nee na indiwuñ dara de ni nii nii dañ doon foo ak yow ni rek yëkkatil sa micro nga wax baax ay te léegi léegi fi ñu toll nii je pense que wax nga parce que ambiance laa bëgg mu tëj mhm. damaa bëgg ñoom Mado ak dërëm euh, bu ñu tàggoowee ba noppi euh, ñu tëj ko ak ak li nga xam ne moom mooy ambiance mais fi ñu toll nii tey lan ngay waajal lan ngay préparer fi ñu toll nii. waaw ñu ngi waajal ab événement bu mag. Mhm. à xam nga ñun. Euh, ay ay njàmbur njàmbur lañ ay mhm. doomu Louga lañ mhm. mais chaque année dama leen defal événement bu mag ñu koy waaj le 8 mars sargal mhm. jigéen waaw ñu la ci invité ah, di la wax bis baa ngi noonu sa bis la waaw bu dul lool aussi ñi pare yeneen ñi xalaat soraanoo ak yeneen ak yeneen ah, parce que euh, ndaanaan la ay ndaanaan lañu ñu ngi ci milieu bi te dara jommuñu ci te ñu ngi ci yoon wi xam na li ñu bëgg xam nañ li ñu visé xam nañ fi ñuy teg suñu tànk dëgg la mhm. am na solo mhm. aca Seexu Gueye sa neex a ah, chéri Papi maa ngi lay kontaane bu baax a baax a baax wax sa mot la fin avant ñuy dem ci ambiance bi mujj mhm. ma demaat fee ca plateau ba fekk sama gaañ waaw may gërëm Seexu Gueye alias Saneex sama mag sama xarit chéri Sadia aaw buru këram ñu ngi ñëw ci ambiance bi yëpp ma baak sama jabar ji aca bismillah nañ dem nga doxal yaayoo yaay nday nang sama yaay ji ko ndayoo mu ku juddoo baax rek ñu ma la waxee dara ba may leen ma may leen ma. moom xam naa moom du màggataale bopp moom du màggataale bopp moom léegi yow fi ñu toll nii ah yow léegi fi ñu toll nii moom xam naa ni dina nekk soirée affaire yi ambiance bi bari ngeen war a tëgg lu bari mu dóor bopp bi ci bool euh, ci bopp bi xëm euh, soirée bi du yegg parce que moom mi moom élément clé la ci yëf yi léegi fi ñu toll nii bu mën la nee dinañ def Dakar Ndopa est ma gëm ah bañ a gëm waxal sa mot de la fin ñu programmer Dakar ne dort pas semaine bi mbaa semaine bi ci topp. mot de la fin bi mooy ñu ngi jox ñëpp rendez ah. ñu ngi lay sant. waaw ah. ñu ngi lay gërëm. franchement baax nga. Ah. li ma lay gis ci télé beeg yëpp man dama doon wax. dama simple man ku baax la vraiment ku woyof la billahi ku la jegewul. mënoo maa xam ku woyof la barki yonent bi barki yonent bi. billahi ma bàyyi sama kër dépense di wër ci kër yi di añ loolu ku woyof rek ko mën du ma fa bàyyi dara di wër ci kër yi di añ xaw ma ñàkk jom la maa woyof. wooye leen ku leen neex en tout cas daal boo ñëwee ci Dakar ne dort pas dinaa jox gars yi yëpp ku ne micro ñu présenté wu. Dakar ne dort pas loo xam ni di nga dégg taas. maa ngi lay kontaanee. barke borom Touba maa ngi lay kontaanee gërëm euh, Mamadou Mamour Diallo. waaw di jàpp ci combat waaw waaw. Chéri Binta Diallo sama xam naa moom du ma la ñëw fële moom xam naa kon du ñëw kon moom du ma jee ñëw. xam nga Dakar ne ngay ñëw ngay sant waaw acca acca acca xam nga day jàpp ci combat bi ah, ku baax la ku baax la daf may jàppale jabaram binta borom Louga jabaram binta Diallo may jàppale xam nga solo sama kenn du bëgg la kenn du moo a jàppale la mm. maa ngi koy sant maa koy gërëm jàmm maa ngi leen di kontaane bu baax ñu dem yeggali waaye balaa may yéegaat ci kaw seen bi damay euh, nuyu ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ñëpp ñëpp ñëpp di wax ni mën ngeen wootee ci numéro yooyu ba tey am na kenn sax ku ne ci bi ma jël ko laataa ma yéeg salaamaaleykum maaleykum na ngeen def yaay booy. dafa mujjee coupé. bu dee am na keneen ku ne ci ligne bi rek mën nañ ko jël euh, maa ngi ci kaw bu ñu paree rek jël ñi nga xam ne ñoo ne ci ligne bi tey woote woote leen ci numéro yooyu nga xam ne yéen a koy gis à dërëm nekkoon ah ak kii euh, Diaw euh, fee laa nekkoon waaye ci booy yi ah, doon te ñoom fa ñu nekkoon am na solo lool ñu way aawo bu yàgg booy bi juum daal di ciy def kii Diaw ah, ma ne ko moom du foofu la bokk ma ne ko bokkul foofu ndax Fadel da di daana daal la ci def man ko yaa ngi yaa ngi yaa ngi juum <laughs> yaa ngi juum wallaahi yaa ngi juum Fadel Fadel da di daanaan waaye mm. def euh, tubarkalla macha allah mm, euh, li muy mm. taasu da koy teg ci tànk ndax lu mu mm-hmm. wax téere la xam nga taasu bari na mais bokkut day jox ay parole day def thème mu nekk xale boo xamante ne nag bu ñu ràññee loolu muy Fadel Mbaye moom mi moo dàq taasu dafa mën a taasu moo dàq taasu Fadel xale yi dafa mm-hmm. xew tamit teg ci tubaarkalla mm-hmm. macha allah ba mu koy def lu tuuti la mm-hmm. yor cuuraayam yi boole koog saf-sap comme Fadel yal na la yàlla lafal cet wéral sa baat ba nga yeggale ndax li ngay wax réew mi déglu nañ ko ndax yaay dafa foor te woy na yaay lu rëy ma di ko may sama yaay jëte intuit mère Ndiaye ah maam bu Bousso ba mu toogee ba tey jugul di muñal sama baay ba ba tey nii rek ah, di ko nuyu di nuyu yaay Sénégal yëpp rawat rawatina ki nga xamante ni mooy Jaal Diop ak euh, ñi ñëpp ñu nekk inti bi nag ndax boo limee doo matle rawatina ndaak borom pari aw bat si xale yooyu nga xam dañ maa bëgg mm. nekk Paris bu ma connecté wul sax dañ may laaj lu xew comme waa pari aw ma seen pay ami ndaw di leen nuyu ñoom ñëpp di wax ne seetu bi nag seetu Sénégal la mm-hmm. nii lañ koy defee rek kenn du ko omelette dañ koy mayonnaise ku ne capp te defe naa ni capp bi leer na Sénégal ndax tey defe naa ni bongo noonu sabaru nanu mhm. lu ne am na fi Mado comme daal tey fii wàcc na ba ba zéro daal wàcc na ba zéro mooy comme li nga wax rek dërëm donc di jaajëfal bu baax xale yi nga xamante ne ñoom ñoo fi mhm. jot a jaar ñëpp parce que je pense que léegi bu ñu naan relève xale yi mun nañ euh, yóbbu li nga xamante ne moom moo di relève bi ndax fu ñu waxee bàkk rek di nga xamante ne xale yoo xamante ne jot nañ taataan ba pare am nañ expérience te comme ni ñu koy waxee way dafa am solo mhm. te way joo xamante ne da nga ciy tem di yee nga xamante ne moom moo di sa ay morom sa ay nawle baax na kon nag di leen di jaajëfal bu baax delluwaat rek di way way ju mu neex rek yaay kon dañ koy mayaat sunu yaay ji nga xamante ñoom moo jàppale eh, géy njooru basi ba ci tégg ball maram balla surtout eh, doomu Fatso Félix boobu ak eh, a képp yaay boo xamante ne yaa ngi jàkkaarloog télévision Futur Média ci waxtu bi ñu nekk Aba almender ma nga ci Amérique di waajal suba le 24 soirée boo xam ne soirée bu am solo la et puis nañ fa équipe de Dakar ne dort boo xam ne war nañ leen a fekk foofu daal di fay jël Dakar ne dort pas indi ko ci télévision Futur Média ñëpp mën ko seetaan am di ciw sama waa ji am di kolobaan maa ngi lay kontaane bu baax a baax yow tamit yaa neex a fekk kolobaan sama waa kenn du yow salaamaaleykum allo allo salaamaaleykum allo papa Omar yow moom danga maa moom non yow moom danga maa bi da ngay sa tele bu baax a baax a baax wàññi naa ko. wàññi ko ba mu sës. naa ko ba mu ay te yaay booy ci lan nga nekk. maa ngi nii rek. noo def. maa ngi fi rek. noo tudd ak fooy wootee. Mbayang laa tudd woote Mboro. ah. woote Mboro Mbayang Mbayang. ah na ngeen def. ngi fi. nu ubbil la fan. leen ma Thiès. Thiès. waaw. Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar. waaw. mille cinq cent cinquante cinq Jakarta benn aéroport. waaw waaye Thiès neex. waaw Thiès dafa neex moom. Thiès de neex na neex goo xam ne yaay booy. waaw. Thiès de. Mm-hmm. yaay ñu bi la fan Thiès. waaw. waaw. yaay Thiès. waa Thiès da laa leen wax. ah ayca ayca yaay booy ayca kon Thiès ubbeeku na ñu ngi may accéléré. waaw fee ci ginnaaw naan ma yow sa na ayca ubbi nañ Thiès yaay ubbi nañ wuyul Diaw. allo yaa booy. yaay wuyul Diaw ma ca ni ko ko kon nag ci sa enveloppe bi fekk nañ fi fukki junni. wallaahi. <laughs> waaw waaw jattu nag may filmé mi ngi ree foo moom waaye jattu lii nii la lay aw kii la jëm yaayoo ko moom. ayca yaay wàcce ci suuf. <laughs> ayca ñu yaa moom fukki junni yi ayca. ayca yaay booy dafa mel ni ñu meen ci waxtu fi ñu toll nii euh, moom xam naa moom la ñu ubbee rek waaye moom la ñuy tëjee ayca moo def kaw ba suuf ayca muy madame Guèye Magui Guèye kenn du moom borom club de Godé nekk moo waat ma naa ko wuyu moom dina la wuyu dina la woo tey bu nu wàccee léegi nii ah, fii ngay taxaw sax lan koy woo ma waaw mu wuyu nu mu mu def ndax tubaarkàlla macha allah mu euh, sol artiste ku ko jàppale rek ah, yaa nga ca émission bi te mu ngi ci émission bi ndax yére ba dàll ba lépp. Mhm. ba périk moom la. mu ngi nii toog saa yu jógee voyage day mel ni man la demaloon voyage. comme madame Guèye kenn du moom mu ngi nii toog. war a anniversaire. <laughs> képp koo xamante ne bëgg nga ci tay baas yu baax yi. Mhm. da ngay woote 77 273 48 48 nga jot madame Guèye foofu ci club de beauté Sacré Cœur ci VDM bi ci wattu Hyundai bi boo ñëwee rek mu daal di lay defaral yu mucc ayib ba ci kanam gi gay Guèye ngi foofu. Mhm. di xale bu set loxo bu la maquillé wee rek nga xam ni. xool nga ma bi may dem foofu damay mel ni. tol bi may ñëw dama mel ni ndox buy ndax nooy <laughs> lii la def <laughs> comme euh, magi ma euh, euh, di ko béggee bu baax a baax di wax sa temps yow kii nga nuyu ñi nga bëgg a nuyu ñëpp parce que moom bu nuyoowaatee ci kaw nuyoom nga naan abaa daam ku nga ko sa temps yow nga nga nuyu ñëpp. <laughs> am nga fulla daal Aba di wax ni Jeyna euh, bu Kër Libaas moo jaar ci li nga xamante ni mooy accessoire yi. Jeyna bu baax mi sunu waajooñ nga xamante ni fu mu bàkkee ci man jin ci mado comme kenn du moom ba Jeyna ak ki nga xamante ni mooy Cheikh Fall foofu ca Petersen gars yi ñëpp lañ ciy jàppee. Aba ñëpp lañ ciy jàppee comme bu ñu toogee fii war nañ leen di leen fàtte. lii la artiste bi am. kese lii ñu la jox soo ko bu ma ko bëggoon a jënd mooy yéen mënoo koo fayeku. ah loolu la nag nag comme na ko ndax saa yi ma fa demee bu may ñëw du ma milliard dama koy may dugg taxi du ma ko stop ay ci dërëm ñu ngi lay bu baax di ko souhaité waat moom encore une fois euh, anniversaire madame Guèye ah, loo dund doyul waaye xam ngeen émission bi euh, dund ñett ñeent la waroon doon waaye père bu xar nee na ar bu tënk fi ñu toll waa père moom kenn mënul ko dara père kenn mënul ko dara mooy kilifa plateau bu ko neexee ñëw bu ko neexul ne ar bu doon <laughs> am waaye hmm? père lu mu yor tuddee ko waa Kabbi Góol waa Ndoxalaan xam nga seen <laughs> permis kenn du moom Aïcha Diaw joyeux anniversaire à Arona Moussa Dia waaw donc Arona Moussa Dia comme ni nga ko mm. a happy birthday à lui ak Fama Fama Mbergane moom itam suñu soxna mm. boobu macha allah mi nga xamante mm. ne moom moo di <laughs> Khalifa Mbergane moom itam mais vraiment prisonnier yi nga xamante ne ñi ngi nekk euh, fee ci liberté 6 camp pénal ñoom tamit dañuy seetaan bu baax a baax donc ñi ngi leen di nuyuwaat di leen di encourager bu baax a baax baax Muna Muna euh, Beauty mi nga xamante ne moom moo nekkee fii ca London borom euh, Gambie noonu laa koy waxee ak sama doomu ndey bi nga xamante moom moo di Lalia Jammeh from London waaye sama mag sama xarit donc ñoom ñëpp ñu ngi leen di remercier et puis di remercier nag tey ki nga xamante moom moo euh, bi nga xamante ne moom moo fa nekk ñoom Garba monsieur Garba donc moom moo ñu habillé tey macha allah boo leen fa demee di ngeen am baax baax yooyu waaye Zeyna Libaas ah, kooku itam sama rakk xol ak ñoom Libaas ñoom ñëpp ak Kiné ngi leen di ziar yéen ñëpp dama leen bëgg a inscrire ci CMU. dañuy bokk couverture maladie universelle. ayca yéen ñëpp ma inscrire leen. ku ci nekk ci ñun 3500 année bi yëpp boo feebaree dem waxuma leen nag bu ma leen bu ngeen rombé hôpital bi rek ngeen xaw faa gëcc waaw ngeen dugg ne waa ñu seet ba pare da dem ci ay poste de santé dem ci centre de santé yi balaa ñuy dem ci hôpital yi te dañu wax bu ñu li nga a def doo tëb tëb rek dem hôpital war ngaa dem poste de santé jaar centre de santé bu dee dafa am lu garaaw ñu soog laa yóbbu la puis dafay baax nga am sa carte 3500 nga faju année bi yëpp ah, loo war a fay benn euh, ñu def la ngay participer rek loolu am na solo loolu xam naa dinañ ci gën toog gën ci yaatal muy gën yaatu lool lool ak waaw ni mu mettee un an nga fay 3500 xale yi ci école yi ñoom 1000 francs moom moom fay bokk ci CMU gi donc waaw waaw waaw na ñëpp dem inscrire am na solo lool am na solo lool ndax réew koy wax faaw animateur yëpp di def ñi xam dañuy wax faaw ñëpp di def te yàlla rek tax parce que dañuy dimbali askan ñoom bu mm. waruñu xaar ñun ba nu fay ñu soog leen dimbali ci loolu la ñuy def man bañ ma woowee ba wax ma sensibiliser ma dama leen lii xaaruma leen ci dinaa ci wax li nga xam ne moom laa ci war a wax yëpp CMU dina dimbali surtout suñu yaay nga xam ne ñoo ne ci àll baat feneen ak feneen 3500 euh, nga faju at mi yëpp yëpp c'est très important am na solo ñu kontaan ci ñi nga xam ne ñoo togoon seen kër di ñu seetaan ñëpp ñëpp ñëpp ak équipe bi nga xam ne ñoom laa àndal miroir fin d'année di bëgg ci caméraman yi waaye di bi ak ñi nga ne ñoo jël son di kontaan ci waa SSP sama sama PDG Ndiaga Tanor Mbuub rek laay nuyu ci équipe bi nga xam ñoom laa àndaloon tey Tanor Mbuub astafurlah ak Demba mi may filmé fii ci maa ngi lay kontaane bu baax di leen jox dox daje bu suba ak jàmm ak doyen ak njaay ak Bessel Bass ci miroir fin ba tey ak slogan bi ak concept boobu nga xam ni mooy teranga Sénégal jërë ngeen jëf ba suba ak jàmm bye bye. simple.